إلا البشرية جمعاء ليكون مظهر الرحمة أو ليكون مظهر الرحمة الإلهية للعالمين أنها جاءت في شهر ربيع الأول المبارك الذي شهد ولادته السعيدة taala alayhi wa sallam na leen ak ñun noo ngi yëkkati nuyoo bu tedd ci biir rassemblement des sénégalais contre l'islamophobie te imam Ahmad Dame Ndiaye jiite ko di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay koy tàmbalee ci mboolem xalif généraux yi nekk ci biir Sénégal ndax kenn ku ci nekk ci ñoom yëkkati na kàddoom wane naqar wu mu am ci kaay kaay gi nga xam di gërëm mboolem njiit association yi nga xam ni ak kuréel banqaas yi nga xam ni ñoom ñoo taxawal jotaay bii waaye ñoo ngi sant di gërëm mboolem jullit yëpp ñi teew ak ñi yéene a teew ñoo ngi sant itam képp koo xam ni mooma juboo te innal ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yaqtuluna ñun jaay nañu suñu bakkan jaay suñu alal yàlla kon lenn lu ci nekk yàlla mooy ci ko moom kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bu rafet boobu waaye itam ñoo ngi sant mbooleem comité bi nga xam ni ñoom ñoo taxawu lii ak seen mbooleem coordinateur yi ak mbooloo yi xam ni ñoom lañ ko àndal di sant yi tamit góor di sant jigéen ñi di sant mag ñi waaye tamit di sant ndaw ñi ñoo ngi sant la presse de manière générale muy la presse écrite muy télévision yi fi ku teewul yàlla na nun yàlla ndimbal ndimbal lu jëm ci bi sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla nu ndimbal ndimbal lu jëm ci jàpp topp yonent bi sallallahu taala alayhi wa yal nañu yàlla boole ndimbal ndimbal mu jëm ci roy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax loolu rek mooy li ñuy dimbali su ko defee mbokk yi ñii laaj ndaje ñii ana lan moo ko ndaje mii ana lan moo ko tooy moo ko wund ak tooy dafa am ñu tool am ñu ñu tooy waaye ndax tool gi bett na leen ma ni damay laaj ndax na leen ma ni ndax tooñ ñu tooñ bett leen tooñ gii tàmbaliwul bi moo ñu ci di ñu ñoom du ñu tey ci di ñu xeex ba fekkee mën nañ ko wal iyaasu billaahi ñu génn ci diine kon loolu moom mooy li nga xam ni mooy li am. kon ginnaaw bi njëkkul tey te mujj tey jotaay bii bu ñu ko daal di daje nii rek yaakaar ni jeex na taxawaay bi rafet lool waaye nañu xam toll nañ ci jamono joo xam ni ñaari kuréel ñoo taxaw kenn ku ci nekk di réclamer say valeur muy xisbullaahi ak xisbu seytaan ana ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ñi nga xam ne ñoo ànd ak yonent bi sallallahu boole suñuy jëm boole suñuy pexe boole suñu alal ci taxaw ba li bi andi woon ñu sànni ko ba ñu koy fekk te réew mii ñu toll dégg naa si xaw ma nag sëñ Makhtar Kébé mi ngi ba léegi sëñ Makhtar noonu naan dara gàmmu Tiwaawan mu tudd teg loxoom ay lim am ci numéro yi ren jii ni wax na bokk na ci liñ tudd léegi muy borom ñaar borom ñaari waaye mbokk yi muy mbirum góor jigéen ñi gis ma jël nga nii gis ngeen document bi ma demee nii mooy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre 2016 ba 2026 kon xam ngeen ni yéen ci seen tur ak turu kilifa bi nga xam ne moo wax ci turu kilifa yi diine serons jamais prêts pour légaliser l'homosexualité au Sénégal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.